asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ah, ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal te di sàkku ceeb ñaan di leen wax ne dellu si leen beneen yoon di leen wax ni itam gëj a dugg bi ak gëj direct bi du dara lu may yitte yi nga xam ne sëriñ bi daf cee nekkoon temps yi rek moo taxoon ngeen gëj ñoo gis ci direct bi waaye dellu si leen encore beneen yoon sëriñ ñu bàyyi la nga nuyoog jaam ñu comme ni nga ko daan defee ñaanal leen ba dañoo tam waxtaan bi bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin yaa himmata shaykhi uhdina bi hadha almahdari wa tahti fi min ahdara tahti lana safar allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di leen nuyu bu baax te di leen fàttali rek jotaayu tey bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu santé eh, lu jëm ci wàllu arthrose ak lu jëm ci wàllu rhumatisme nerf sciatique ak lu jëm ci li nga xam ne mooy wàllu douleur articulaire lu mel ni fatiguement général lu mel ni city bu chronique lu mel ni hémorroïde bu chronique li nga xam ne daal dafay jëm ci wàllu fatiguement li li nga xam ne dafay jëm ci wàllu métti métti douleur incha allah ci loolu lañ fas yéene waxtaan ak yéen di wax bismillah waaw dañoo nekk ci jamonoy sedd période méttitu yax méttitu ndigg ak ngelaw yi nga xam ne mi ngi dugg nit ñi <coughs> ngeen jéggal ma moo waroon ñu jël tey thème bi fas yéen ci waxtaan euh, solution yi nag dina ñëw ndax euh, ñàkkul na jàngoro ju ne am na garabam mm-hmm. waaye lan moo ëpp ci ñi nga xam ne yaa ngi leen di consulter jamono ji ci jàngoro yooyu nga wax léegi léegi léegi muy douleur articulaire ay arthrite ay rhumatisme ak ban tranche d'âge dañoo seetlu ne mag ñi ñoo daan gën a bëri ndax loolu lu avéré lu am la wala lu amut la. waaw loolu lu am la. Hmm. ndax doomu aadama yàlla moo ko bindi mu nekk ci mbir moomu ndax nit ku su fekkee yàlla dafa la bind nga nekk koo xam ne dangay ngay lekk di naan. Hmm. di yëngatu il faut nga am pratiquement il faut nga sonn hmm. te feebar. dafa bokk ci nit doomu aadama yu bari tey ñu ngi ñu ngi am feebar te fajuñu ko te ñàkk faj boobu ñi ñàkk faj seen feebar dafay indi dafay juraat beneen feebar bu bokkut ak feebar bi nga xam ne moom lañ nekkoon di di jàmbat te bokk na ci lii nga xam ne mooy wàllu nerf sciatique nga xam ne tey boo xoolee nerf sciatique benn neer la boo xam ne dafa jugee ci ci ndigg li jaar ci fes yi ci ginnaaw jaar ci cuisse bi ci ginnaaw romb genou bi ñëw ci mollet bi wàcc ci tëstan bi mooy ci pie bi donc neer boobu noonu dafa nekk neer boo xam ne des fois da ngay gis koo xam ne dafay yëkkati dara lu diis wala mu def faux pas wala mu def soc wala mu def benn benn benn mouvement boo xam ne dina indi neer bu coincé wu léegi bu neer bi coincé wu nag loolu moom mooy tax mu def sciatique loolu mooy tax mu nekk neer sciatique nga xam ne léegi douleur bi day ah, day métti te du du arrêté moo tax ñu bëri dinañ leen di wax nerf sciatique mais duñ xam la mooy nerf sciatique mais nerf boobu nag te maanaam am na ci ñoo xam ne sax dana àgg ci ñoom ba ñu leen pour dindi neer bi mu mën a libre pour mu mën a continuer def ay activité am mu mu continuer de fonctionner waaye yàlla ñun daf ñu ci may tawfiix boo xam ne dafa am garab yoo xam ne boo ko naanee neer bi dafay deñ dafay génn fi mu nekk daal di positionné waat ci place am euh, coincé bu mu coincé woon day deñ ndax man ci je me rappelle très bien depuis pas mal de années maa ngi faj nerf mais alhamdulilah mosuma ci am benn retour boo xam ne bu négatif la bu wane ne faj naa nit nerf sciatique wérul donc musuma ko am benn sax benn patient boo xam ne faj naa ko nerf sciatique mënuma wéruma mais nag ci côté médecine moderne bi je trouve que ne am na ci ay nit yu bari yoo xam ne fa la ñuy jógee ñoo ci man ñoo xam ne tey dañuy def ay analyse def ay rajo bañ wan ko ñuy def ay analyse def euh, traitement ñuy def ñu leen def ay massage des fois man soo ñëwee man massage bi sax dama koy bañ ndax neer kenn du ko bës man dama koy bañ dama lay jox garab nga naan euh, jox la frotté boo ciy diw mais doo ko bës da nga ko ci diw noonu rek bàyyi noonu donc nerf sciatique nekk na feebar boo xam ne feebar la bu métti euh, koo xam ne dal na la kooku mooy xam lan mooy nerf sciatique parce que du douleur bi du arrêté à tout moment da ngay gis dangay ngay yëg benn métit boo xam ne mënuloo ko expliquer nit donc loolu moom mooy nerf sciatique am na traitement bu bu efficace boo xam ne am naa ko garab yi ay tee la da ngay jël rek daf ci infi def infusion def ko ci teel yoo xam ne dañ ko infusion lañ koy def daf koy infuser ci biir euh, cas bi sotti ci ndox mu tàng rek comme comme les autres nga def ci ndox mu tàng bàyyi ba mu sedd nga naan ko amul benn complication amul benn coono te it amul benn effet secondaire amul dara loo xam ne boo après dafay nekk complication pour problème nerf bi soo ko naanee dafay deñ automatiquement donc loolu mooy nerf sciatique te feebar la man gis naa ñu bari ñoo xam ne euh, dem nañ ba mënatuñu liggéey yi ndax douleur nerf sciatique yi nga xam ne dañuy xëy duñ mën a wàcc seen lal am ñoo xam ne duñ mën taxaw lu mat sax cinq minutes dañuy sëgg am na ñoo xam ne duñ mën a toog lu yàgg à cause nerf bi donc nerf sciatique nekk na feebar boo xam ne feebar bu metti la waaye képp koo xam ne dal na la incha allah boo jokkoo ak ñun mën nañ la dimbale ci nerf sciatique boobu ba mu dañ ci sa yaram te doo ci am benn jafe-jafe. waaw léegi douleur yooyu nga xam ne nit ñi ñu ngi koy faral di sentir xam nga am na si ñoo xam ne sedd bi la. maanaam sunub sedd bokkut ak sedd fële lu waral mu ëpp fii ndax euh, déy nga ma ne li la gën a jaaxal ci mbir yi mooy fii la ëpp ka fële à l'extérieur te sedd bi fële la gën a bëri amaanan fii peut-être muy jóge suuf si la wala leneen wala pourquoi jàmmat bi waa extérieur moom li ñuy gën a dégg ci ñoom mooy wàllum néegu sëy beeg wàllum hémorroïde beeg ak seen problème personnel seen diggante seen soxneeg loolu lu waral problème problème yax yi ëpp fii ko foofu waaw parce que fii sedd yi bokkuñu hmm. ak condition de vie bi bokkuñu fële da ngay gis dañu am ay chauffage maanaam dañuy seen néeg yi hmm. période seddaay hmm. dañuy sauver seen néeg yi dañu am chauffage bi amul benn kër booy dem ci Sénégal fekk fa chauffage amu fa bu seddaay ñëwee noonu lañ koy dundee directement te loolu c'est très important ñu bàyyi ci xel am na ñoo xam ne dañuy amuñu chance amuñu moyen amuñu doole pour sangoo ndox mu tàng te fekk na seen yaram yi am na yenn yenn maladies yi ci nekk comme lu mel ni ndox siti bu bari mm-hmm. su nekkee si sa yaram danga war di sangoo ndox mu tàng su période seddaay sinon yow yaay ëpp douleur ci sa wàllu yaram ci ki nga xam ne du sa ci ki nga xam ne amul ndox siti mm-hmm. bu bari donc loolu mooy waral su fële au niveau du l'extérieur mooy Europe nit ñi danañ am ay nerf sciatique dinañ am ay douleur articulaire mm-hmm. mais chauffage yi ngi tàngal taal mooy waral ñu am chance mm-hmm. ba duñu jàmbat yenn jàmbat yi mm-hmm. comme africain yi nga xam ne amuñu yenn moyen yi mm-hmm. loolu moo koy indi donc fii da ngay gis seddaay bi bu jotee mbàjj rek lañ am pour comme solution pour def suñ kaw te mbàjj bi day sedd ci biir lal bi ngay tëdd day sedd nga nekk ci biir nga nekk ci biir encore donc doo am possibilité pour am benn chaleur bu mën a tax sa deret di dox normal beneen bi ci mooy Euh, soo xëyee di sangu soo koo xam ne bu gazam jeexee day am problème pour ça recharger ko kooku mënul jël gazam di ko di ko def ndox ba xalee ndox mu tàng di ko sangoo. Mm-hmm. donc y a des y a yoo xam ne quelques-uns yoo xam ne ci Sénégal ñoom ñooy am. yàlla may na leen euh, ñoom ñooy am sens mën a mm-hmm. mën a mën a am sofa seen kër wala ñu am euh, kii bi nga xam ne mooy. doole yi jël seen gaz tàngale rek recevoir bi nga xam ne mooy tàngal ndox. ah waaw plongeur yeeg yooyu. waaw yu tàngal ndox bu tàng yooyu. Mm-hmm. léegi sax gars yi ñu ngi koy importer léegi di ko jaay système solaire bi ñu ngi koy am di ko jaay. Mm-hmm. di ko am seen kër yi donc loolu dafa am njariñ ci mm-hmm. nit période seddaay dikk yaramam dafa war di tàng et puis di naan ndox mu tàng tamit ñi nga xam ne dañu am problème mu nerf sciatique wala ñu am problème mu arthrose wala ñu am problème mu euh, rhumatisme ñuy naan ndox mu tàng kese saa ñu naan sans ñu naan benn médicament loolu bokk na ci les meilleurs médicaments yu tax sa problème mu nerf wala sa problème mu problème mu arthrose bi doo ko doo ko yëg wala problème mu problème mu rhumatisme. tàngal ndox rek naan sans rien du tout sans café def dara bu ci def café bu ci def dara tàngal ko ba nga xam ne di ko mën a naan nga naan ko loolu dafay remplacer dafay remplacer sangu bi nga waroon a sangoo ndox mu tàng daf koy remplacer à quatre-vingt pour cent. donc loolu c'est des c'est conseil boo xam ne dama koy jox ni en même temps soo koy naan problème mu doo ko am le matin et le soo ko mënee. boo koy naan doo am problème li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, kii kii maanaam problème tension mm-hmm. doo ko am en même temps doo am problème mu fatt fatt loolu ñuy am noonu waay waay mm-hmm. ak graisse graisse bi nga xam ne waaw loolu asthmatique war nañ koo dem ci sedd bi waaw mm-hmm. ak graisse yi nga xam ne dafay nekk ci sa xol bi loolu tamit da koy dégraisser day mel ni koo xam ne yaa ngi def sport yaa ngi daw wala yaa ngi waaxu lu mat au moins cinq kilomètres par jour boo doxee li sa yaram bi di dégager ci wàllu énergie ak sa wàllu yaram ni muy dégraissé woo noonu lay noonu lay def tamit fekkee da am cholestérol dafay dindi sa cholestérol ba mu normal dafay wàcc dafay indi sa dafay régulariser sa taux de cholestérol bi moo mauvaise cholestérol bi da koy wàññi. Hmm. donc nan ndox mu tàng même les chinois boo gisee ñu fonk ko mooy da ngay gis ñoom dañuy sec même ñi nga xam ne sax dañuy am dañuy jël pois dañuy am dañuy am surpoids ñooñu. buñ jëlee ndox mu tàng di ko naan da ngay gis dañuy dégraissé wu bu baax moo tax naan ndox mu tàng képp koo xam ne am nga jafe-jafe def sport pour mën a def sport euh, trois kilomètres de marche par jour boo ko amee problème rek del naan ndox mu tàng matin et soir soo ko munee le matin boo yeewoo le soir balaa ngaa tëdd yooyu dafa important ci nit ki boo naanee kaas bi ngay dékkee boo ko defee ndox ba mu fees nga naan ko ba sa biir bi ndox mu tàng mi nga koy sànti ci sa biir biir bi loolu da gis ne soo ko saxawee doo càmbat benn feebar ci sa yaram. d'accord seetlu na tam que ndox yi ndox mu sedd mi wala boog fajar gi karo yu sedd yeeg sedd bu bëri jamono ji ñu nekk nii ak euh, temps bi seetlu na itam baaxul ci wàllum ci wàllum sëy surtout góor ñi. Mm-hmm. góor ñi lay gën sonal sax que jigéen ñi góor ñi seen seen seen wàllum ndëgëraayu sëy dina ci wàññeeku trop. ndax ah, góor dañuy fare waaw ak dem toilette. ak dem toilette dem toilette euh, tuur ndox. wala nga def say besoin ci toilette bi nga jël ndox mu sedd mi noonu ndox mu sedd mi noonu nga xam ne ci biir toilette bi nga jël ko rek nga raxasoo ah. loolu moo gën a mën a gaaw moo gën a gën a def impuissance sexuelle di nga sa appétit lay coupé automatiquement sa neer yi lay nelawal. jug fajar dem toilette dem toilette wala su guddi gi nga soxla sa bopp rek dem toilette. waaw nga gaanuwaay par wala nga tuur ndox pare rek nga jël nga jël. ndox mu sedd mi nga jël ndox mu sedd mi rek. Hmm. raxas raxasoo ko. Mhm. loolu moom lu mhm. ma ko damay wax ne kenn waru ko xalaat pour def ko. Mhm. waaw kenn waru ko xalaat pour def ko. soo koy def néew kàttan ci sëy ak appétit bi coupé mënuloo fexe ba doo ko am. di nga dem ba sax sa sàkkara dootoo amati puissance impuissance sexuelle da nga koy am moo tax képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi dem kii toilette na nga fexe sooy raxasu. nga bañ jël ndox mu sedd guy di ko raxasee sa kanam loolu dafay couper dafay tax sa sa sàkkara mhm. dafay wàññi doole day wàññi doole ci sëy mhm. même am na am na ñi nga xam ne te dañu am impuissance sexuelle suñ demee ba war a sëy ak seen soxna néew kattan ci sëy quoi waaw buñ mhm. demee ba war a sëy ak seen soxna te amuñu possibilité jën jënd ay garab naan ko nañ jël ndox mu tàng boo xam ne seen awra ñeme ne ko ñu raxasee ko seen awra balaa ñuy dem tëddi loolu boo ko defee da am da am érection boo xam ne dangay ngay waaru sax ci yàlla da ngay daan yow ndeke dara jotu la. fekk sedd bi rek moo la jàpp. moo jàpp sa moo teewoon sa neer yi voilà moo jàpp sa neer yi ak kii awra yi. Hmm. donc jàpp sa yaram bi. donc loolu conseil ndox moo koy yee quoi moo koy yee. Hmm. loolu dama koy conseillé ndax si sidit la rek. si sidit la mu ngi mel tey nga am sa soxna tey mu nekk en en pleine forme ngay am ak moom rapport hmm. euh, nga gis sentir am tàng da ngay gis da ngay gën a am érection. moo tax ñuy bëgg jigéen balaa ngay sëy moom nga mm-hmm. fooyee ko ba yaramam tàng bu mm-hmm. yaramam tàngee booy moom da ngay sentir bi dafay tàng tàngaay boobu nag mooy mm-hmm. tax sa sa sàkkara am érection bu baax loolu moo tax euh, loolu conseil mooy joxe la pour ñu timin ñi nga xam ne ñu am impuissance sexuelle bu ñuy sëy ak seen soxna bu ñu amee possibilité mën a raxasoo ndox mu tàng balaa ñuy dem tëddi ñu raxasoo ko ndox moo xam ne dafay nekk ndox mu yem nga xam tàngaay bi dana mën a yee sa période bi ko pour période tàngaay bi nga xam ne dina mën a yee sa sa awra bi mm-hmm. soo ko defee di nga am érection bu baax di nga mën a sélection di ko jox di nga ko mën a satisfaire te tamit dina la permettre nga mën a am durée bu yàgg day tax sax doo am éjaculation précoce loolu da koy dindiwaale mm-hmm. donc loolu baax na ci tamit. yan yan yan yan kii nga seetlu na sedd bi dina ko def ci doomu aadama yan yan yan genre problème mooy asthmatique yi ñi nga xam ne dañoo asthme mm-hmm. ñooñu seddaay da ngay gis seen asthme day yëngatu loolu am naa traitement bu baax bu efficace bi nga xam ne moom boo ko naanee da ngay am jàmm sa asthme moom day dañ boobu man dama koy faj asma dama koy faj hmm. am na nag ci euh, beneen secteur bi dañuy wax ne asma duñ ko faj mais boobu loolu amul. parce que am ñoo xam ne tuddee ay ndondon te ndond lu ñuy dond la rek. waaw mais ne ku ma ko jox nga naan ko boo paree c'est fini da ngay dem doot sa asma dootul dootul hmm. euh, am na ñoo xam ne tamit ñi nga xam ne dañoo allergie ñi nga xam ne dañoo allergie euh, nga xam ne dañoo dañoo gaaw infecté wu dañoo seddaay bu ñu sangoo ba pare da ngay gis ne ndox mu ndox mu bu ñu laalee ndox rek da ngay gis ñuy tisóoli nii tisóoli rek di di tisóoli di saxat di tisóoli surtout tisóoli bi sax lay leen di gën a nga teg sa tànki neen ci karaw yi wala nga teg sa tànki tànki neen ci ci karaw yi automatiquement ñooñu mm-hmm. nag en général mooy ñi nga xam ne dañoo asthmatique wala ñi nga xam ne dañu gaaw infecté wu dañoo fragile ñooñu moo tax seddaay bi du souvent ñuy sangoo ndox mu tàng di sol ay kawaas bañ koo doxee ci karo yi di da leen di da leen di dimbale ak tamit di bañ laal weñ jël bañ bañ jan seen loxo boo amee seen kër amee ay rampe yi nekk escalier seen escalier yi bu ñu nekkee seen rampe yi bu ñu nekkee en fer suñuy yéeg dañ def bañ téye rampe yi seddaay seddaay boobu ci weñ gi da leen di da leen di affecté ku du day day wax waral ñuy am problème boobu noonu ñi mm-hmm. am montre montre yi nga xam ne seen montre comme man nga xam ne man damaa bëgg montre bii nii mu nekk en fer mm-hmm. nga takk ko boo ko takkee day waral mm-hmm. loolu tamit di la da lay affecté nga xam ne day waral ngay sant yi benn crise boo xam ne ci wàllu ak euh, côté boobu ci wàllu. fekk fekk lu la jege la. fekk lu la montre boo takk la boo takk la rek te yow doo ci rendre compte. moo tax yooyu noonu te important nit ñi di ko xam même euh, ka bu kii bi ngay naanee. Mhm. su nekkee mooy am na ñoo xam ne seen naanukaay yi ñuy naanee. Mhm. kii lay nekk euh, mooy inox yooyu. Mhm. pot inox yi a nga day sedd. yooyu tamit bañ di ko naan ak di naan ndox mu sedd ci temps tàngaay période seddaay. ñu koy éviter loolu dina dimbali dina leen dimbale. ba loolu yëpp dana denc dana denc ci ñoom ba nga xam ne daal duñ am yenn problème yi waaye nag tamit dañ moytu yëre yu tilim wala yëre yuñ denc denc bu yàgg di ko génnee ci période seddaay bi wala duñ ko soxlaa nañ wax ku leen ko génneel mbañ ko laa ñi nga xam ne dañoo asthmatique laa wax. waaw ndax xetu yàgg gi. voilà loolu day war a ak parfum ak cuuraay bi ak cuuraay bi nga xam ne dañ koy def mu nekk mu mu enflammé wu na xam ne day day saxaar. asthmatique naq dina gérer de. waaw dafa métti ak tamit tëj néeg boo xam ne néeg boo xam ne dañ ciy fanaan te du am Euh, aération aération nga xam ne ndo air du dugg du génn. Mhm. donc yooyu c'est important ñu bàyyi ko xel ñi nga xam ne dañu asthmatique ñi nga xam ne nag am nañ possibilité mën a mën a faju ñooñu bu ñu ñëwee man leen di suivre def leen traitement ak ay conseillers yoo xam ne dañ koy def ba ko defee dinañ mën a jot seen mopp normal. mais comme asthme luy daj na looy traité. wax moo ko piqué crise ñëw nga calmé ko ñu bëree bëree bëree bëri faj naa ñu bëri ci côté asthme donc asthme dañ koy faj ba mu wér waaw man gis nga lépp loo xam ne dañuy wax ne maladie incurable la médecine traditionnelle mën na ko faj loolu parce que y a des yoo xam ne c'est des choses yoo xam ne ak affaire saytaane am na ci maladie incurable yu gars yi di wax dafa laxasu àndale affaire loolu mooy waral duñ ko mën a faj mais am nañ possibilité pour faj ko insha allah ma am naa traitement yu baax yoo xam ne boo ko naanee ci côté asma dangay am jàmm surtout xam nga kan laa gën a gaaw a mën a faj ci asma mooy xale bu ndaw xale bu am asma kooku dama kooku moom dama koy faj rapidement mu wér te ñooñu sax moo sax moo gën xale bu amee asma teel ko faj moo gën di ko bay bayal ba mu nekk mag su nekkee mag rek mën na ko mën na mën nañ ko faj mais lii dafay am durée boo xam ne ci lay da koy laaj pour bi waaw kon bu dee nag li nga xam ne moom nga wax noonu ci côté ñi nga xam ne dañuy am ngelaw seytaan yi ci moment bi day gën a gaaw a xeeñ mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañuy am ay coulandeer ñooñu en général da ngay gis coulandeer yi seen yaram dafay gaaw a feeñ yaa xam ne ngelaw seytaan daf leen dugg ñooñu en général daf leen téye sax ba ci côté am doom dañ koy am am na ñoo xam ne seen côté wërsëg daf koy bloqué am ñoo xam ne seen côté wér yaram am ñoo xam ne bopp buy métti la di def am na ñoo ne da di def day mel luy dox ci seen biir yaram fu mu toll rek da ngay sentir que foofu mu ñu métti mm-hmm. loolu moom am naa ci cuuraay boo xam ne da koy dindi mm-hmm. ak saafara boo xam ne da koy naan pour affaire ngelaw seytaan bu nekk sa yaram boo ko naanee suuroo cuuraay bi sangooyeen nii da koy dindi bu baax mm-hmm. da koy dindi immédiatement mu dañ mais nag loolu moom tey mooy ñi nga xam ne dañuy dem hôpital ñu leen di defal e, e, IRM defal leen rajo analyse de sang yépp duñ gis ci ñoom benn feebar hmm. en général ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo am ngelaw ñoo am ngelaw seytaane moo tax ngelaw seytaane c'est c'est c'est c'est important pour ñu bàyyi xel bàyyi loo xel nit ñi euh, ñu bàyyi xel ci wàllu côté ngelaw seytaane boobu ñu bari am nañ lu ñuy jàmbat ci seen yaram te xamuñu lan la ba ci seen côté wërsëg fekk ngelaw seytaane moo leen dugg yàqal leen lu bari loolu ndax ndax jinne yi mën nañu soppeeku ngelaw dugg la loolu yàlla may na leen kattan boobu noonu ñu bari tey loolu la leen bu leen jinne yi bëggee yàqal ci yenn fànn yu bari mënu mënuñu leen a yàqal dañuy soppeeku ngelaw dugg leen am na ñoo xam ne sax bu ñu ci côté mystique dañ lay boole jinne yi jinne yi soppeeku ngelaw dugg la pour yàq la damm sa wërsëg damm sa alal yàq la tasaare sa ay mhm. ñu bari man fajal naa leen sax côté di diw takk ba sonn li ñuy jàmbat mënta wér rek ngelaw seytaane moo leen jàpp te loolu bokk na ci li gën a jafee ci nit ci nit mooy ngelaw seytaane bu dugg nit waaw waaw amaana kon ñu dugg ci ci ci beneen thème wala boog muy nekk suñu. mais arthrose waxu arthrose waaw wax arthrose mooy li nga xam ne mooy <coughs> arthrose mooy yax yuy métti hmm. am na ñoo xam ne day jàpp am na ñoo xam ne seen arthrose day dem ba jàpp seen cartilage bi nga xam ne seen <coughs> seen dootuñu mënati dox am na ñoo xam ne duñu mënati dox Euh, am na ñoo xam ne seen seen yax yi day metti metti boo xam ne day jéggi dayo bu ñuy dox mm-hmm. yéeg escalier yi surtout ñu dëkk ci étage yi te am mm-hmm. arthrose mm-hmm. ñooñu ñoo gën a sonn ñu dëkk ci euh, étage yi am arthrose ñoo gën a sonn arthrose feebar la boo xam ne machine machine moderne bi mënuñu ko faj am na ñoo xam ne sax dañu leen di proposer di leen defal ay opération pour seen côté genou yi. oui pour ñu mën a dox. mais en général ñu bëri bu ñu leen opéré après da gis ñu am ay complications yu métti. dootuñu ma am euh, li jotoon na amakas ñëw dootuñu ko amati. Mm-hmm. c'est rare nga gis ku def opération genou. Mm-hmm. ci côté arthrose mu réussir. Mm-hmm. am na ci yenn euh, docteurs yi wala yenn professeurs yi sax ñoom dañuy sérieux dañuy jub dañuy maam dañu lay wax na la lii amul solution. faut pas l'opérer. waaw amul solution. donc ñooñu man gis naa ci yenn ñoo xam ne dañuy ñëw ci man. ay patients yoo xam ne dañuy ñëw ci man di ma wax ne ma. dem naa ci professeur sangam kooku moom elle a été man ne ma lii amul amul faj amul solution. donc côté arthrose ñun am nañ ci traitement yoo xam ne boo koy naan boo koy naan surtout koo xam ne arthrose bu koo xam ne xale la. Mm. ba mu mu mu jàpp wala koo xam ne début arthrose nga am boo ñëwee bu ñu defee traitement mu automatiquement day dañ mais am ñoo xam ne nag dañu am arthrose xam ne dañuy dem ba seen yaram yi seen art euh, cartilage yi. Mm. Euh, dem ba na ñoo xam ne dem sax ba seen yax yi dañuy laalante ba mal d'état la nga xam ne douleur bu douleur douleur bu loolu ci mag ñi la gën a kii de. loolu ci mag ñi la gën a noonu ñoo gën a naqaree faj nag ñooñu man su ma leen faj dinañ am ay soulagement yu baax yoo xam ne mu nga toog lu mat ay un an doo sentir benn douleur mais après mën nga dem ba quelque temps mu ñëwaat mais boo ñëwaatee boo defaatee traitement. Hmm. da gis mu arrêté am am na si ñoo xam ne. waaw dina dina naq day fàccee. waaw hmm. parce que ñooñu day fekk dem na ba nga xam ne àgg na foo xam ne. Hmm. surtout bu dee début bi moom. moom boo ñëwee rek automatiquement début bi nag fi muy feeñee mooy si sa baat des fois nga gis sa baat di métti wala sa yoxo yi di métti foofu mooy début bi foofu boo gisee rek wala sa colon bi di rek loolu da ngay gis foo ko faj rek day am na ñoo xam ne moom ñëwee ma defal leen traitement arthrose mhm. day dañuy dañuy am seen jàmm dañuy dañuy dañuy kii dañuy wér surtout douleur bu intense boobu ñuy am mhm. nga xam ne dañuy daan ay comprimé rek pour calmer les mhm. loolu man bu ñu ñëwee bu ma leen joxee li ma leen di jox ñu koy naan ak li ñuy def seen i tànk rek da ngay gis automatiquement douleur yi day arrêté baax na kon ñu bàyyi la nga euh, tàggatoog nit ñi waaw alhamdulilah di leen sant leen gërëm bu baax nga joxaale numéro ko dama ko fàttee waaw te let eh, numéro téléphone mu ngi nekk 78 162 64 64 adresse baa ngi nekk fii ci cité mhm. euh, villa cinq villa 652. cité Aline Sow bi nekk fii golf Guédiawaye. Mhm. ku ñëw foofu incha allah boo ñu bëggee gis mën nga ñu fekk foofu. Mhm. ñu ngi foofu tous les jours. du lundi au. Euh, du samedi à au mercredi. Mhm. Euh, yeneen jours yi ci des na bu dee jeudi bi moom. Mhm. mooy rendez-vous VIP yi. Mhm. Euh, jeudi bi mooy rendez-vous VIP yi ñi nga xam ne dañuy nekk ay kilifa bëgg a gis Cheikh Omar Diop. ñooñu jeudi laa leen di kale. nga xam ne bu ñuy ñëw foofu duñ fekk kenn. loolu moom mooy kii bi adresse bi nag mu ngi noonu. numéro téléphone baa ngi noonu. yeneen maladie yi nga xam ne ne waxtaanee wuñ ko tey mm. te yàlla may ñu ci xam-xam mm. keneen ko am tamit boo amee leneen looy jàmbal lu ñu waxut boo ñu ko mm. laajee rek bu ci amee xam-xam ñu dimbalante ca yooyu ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant euh, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërë ngeen def beneen yoon